magie moo moo doon dalal waa bureau ngir mu jàppale ma magie bu bees bii mooy jox sama togg melokaan bu rafet ci anam wu sell ànd ak cafka épice bu neex في hmm, دخوه waaye doom sama. takkaayu or bi rek laa bëgg. <laughs> ak Maggi jigéen bu ne bidéo la. ñaari xaritu jëkkëram lay doon. sa bu baax na. waaw kuy sa doom lay. ki jëkkëram noonu. da ngay ki sëy bi ah, su ma jox moom tooñ. loolu waa copine fi laa ko jëm nii yow. maam junior laay seeti. nga te gis nga keroog waaye ba mu fi ñëwee wax ma. noonu la koy yow waalo waaye mayoo ko keroog fu mu nga dina koy waxee. maa ngi dem wala ngay dem ni kon. waaw ba. yow moom maanaam moom macha ah, allah. waaw ah, ci kanam bu la yàgg ko war a ko ci wedd bi. de mots. Elle commence vraiment à dépasser bëgg yëpp wala nu mu demee noonu. waaw Mass déglu ma yow tamit. non mais déedéet la moo tax nga ñu filmé. vidéo bi man maa ko envoyé aji moom ma wax naa ko envoyé. déggu ma nga ni. xam nga ne aji. vidéo boobu jëlu ci benn intention pour envoyer ko biddéew tas sa sëy. ah yow maa xamoo aji ni mu capable aji dara taxu ko jóg lu dul tas sa mariage gis nga loolu. pari la woon fii rek maak moom mu gis la naan dangaa kii dafa coofe kii moom dinaa ko indi ci appartement noonu. ba pare li nga ci xamul. copain boobu amaloon doom ba tey ñoom ñaar ñi déggante. te d'ailleurs sax foofu la dem yóbbul mère bi ko koor.

waa kay dañuy dem yaay nee ne naa la dafa am fu muy dem waaye na ko bàyyi reeram ndax xamul fu mu jëm ndax dina fa lekk wala du fa lekk cay man yaay <laughs> yaay du changé ma ne ana ji. kon gëmoo ma wax naa la aji dem na. Mass. vidéo man mii maa la ko envoyé waaw. aji moo wax ma envoyé la ko te jëli ci woon nag benn intention pour envoyé ko vidéo sa say tas. Thomas li nga ci xamoon lim la nëbb moo ëpp lii. Salaamaaleykum. maaleykum salaam. merci. Aliou foo demoon. maamu junior laa demoon seeti. Adjé fan nga demoon laa bëgg xam. maamu junior laa demoon seeti. kan ma junior. sama doom maamam dafa feebar mën naa demoon seeti. mais yow dafa nag ma ne da nga bëgg yëpp wala nu noonu yow da ngay génn di tërëlee te doo ma tàggu. xanaa yow ki ngay gis moom ngay tàggu wala nga di ko dégg. non man yow yaa am bett yow ma foo ne jigéen nga naka yow jigéen gu bon nga amoo benn classe yow daa pour taxawal de gauche à droite loolay àdduna. yow daal li nga xam sante ni mel na d'accord. yow da ngaa soxor yow man waxatuma yow ngay wax yow man su ma dee jigéen ju bon yow ngay góor gu bon góor gu bon góor gu jeng góor goo xam ne dafa ragal jabaram yow borom kër gu ñuy dab di ñand nga yow doo góor gu baax te xam nga lan la nag maas wax ji daf may bëgg a neex xam nga lu ma bëgg nga may ma sama baat man damaa sonn te du man maa doon sëy siggil xool ma du man maa doon sëy man maa sëyatul dégguma nga nga sama baat. leer <laughs> yomb day yomb trop. bi yóbboon na nga jàpp ni dinaa la torturer ba Gambie seet sama mbokk ñëwaat. bu boobaa ma torturer la ba Liban seeti samay mbokk ñëwaat yow moomoo ma jëndoo ma lan la yow yaay ki may fase ci ba muy neex yéen bàyyi leen ni ngeen mel bu leen jigéen ñaanee baat mu leer leen na mën na am beneen jëkkër du ngeen ko ko may de da ngeen koy téye di ko métital di ko sonal ba mu futti ba benn góor dootu ko bëgg ngeen door ko fase man duma genre jeeg boobu yow yaay ki may fase 15 heures nga may fase nag 16 heures ma am beneen jëkkër xanaa du man maa jar. attention nag bu leen gis góor mu simple calme rek ngeen foog ne daf faible. yow de faiblesse sant dangaa faible dangaa faible dañ laa jiital ki ñaari jabar te mosoo mënoo assumer say responsabilité xam laa bëgg nga xam sëy bi nii lu ko tax tas ko. da ngay sóob da ngay sóob yow yaay ki may fase. fi nga toog de ni nga fi yàgg ni pot de fleur. loolu lañuy seet li ngay iñaan boo soxor. magie moo leen doon may kooru biddéew